di nuyu képp kuy seetaan maîtresse rek ñu lay nuyu di ziar baax a di wax na maîtresse bi dafa dëgg yàlla neexoon na trop waaye fin bi moom amul sens ndaxte dañu waxoon ne dañuy leeral waaye leeral bi daa mujj nekk lëndam daal ci bopp nit ñi ci man dafa des sens bi dafa des neex na trop waaye fin bi sens bi dafa des ndax leen lenn euh, jëlikaan nu mu sonnee jëlikaan nu mu sonnee woon ci sëyam jëli ko waru ko woon a sonnewaat ci say mi parce que war a wax ne képp ñoom dañuy yeete ñu ne lu waay def rek sa bopp soo njëkkee lu ñaaw foog di nga am lu rafet soo njëkkee lu rafet foog di am lu ñaaw nekkewul noonu jëli ko dafa sonn ci film bi jëkkër dina toroxal goro dina toroxal sa baay def ay tëj tëj sa papa def ay tëj tëj nga dëkk ci xalaat boobu jooy boobu liggéey jëlikat toogul benn yoon noppalu benn yoon ci filmam dafa sonn ba commencement ba fin loolu mun a nekk ku sonn si commencement rek fin bi di di nga dallu xolam dafa war a sedd rek itam noonu la rek yaam daan ko sonnal di ko finnaal muy liggéey di wàcc di jooy di ñëw fin bi dafa waroon a kontaan ñu génne ko ne ko sa papa moomoom alal ji moomoom kër gu rafet gi moomoom euh, oto yu bëri yii mu xam ne kii kat lim jooyoon ba mu nekkee ndaw ree na ko ba mu nekkee mag ba màggee reetaan na ko kon loolu mooy film loolu moo xam ne moo nekk loo xam ne lu ñu mën a yeey la lu ñu mën a yeey la dëgg la moom man moom dëgg yàlla kii moom ñaari lu seex jaañ moom sama fan si la woon wax dëgg yàlla bëgg naa ko waaye lu ñu wax ne boo doxalee sa ndaw sa ndaw boo ko doxalee xaw ma nañ koy waxee mujjante bi day naqari koog moom noonu la moom moom foofu moom d'accord naa fa yéen may reem moom foofu moom d'accord naa fa yéen ndax daa ndawam feem métti mujjante la métti kese foofu moom d'accord naa fa laala tam war fin bi wartoon sonn daal waroon nañoo xam ndax laal la lim naan defalal jëkkëram ak lim naan defal mbokku jëkkër yi ak lim naan sonne ci kër gi yëpp mujj na dem. ba mujj nekk ci jàmm ak jëkkëram ak doomam ak ñëpp yaay Cheikh Diagne lu bon lim naan def goroom daa waroon na këpp waat ci kawam seen film bi daal macha allah neexoon na trop waaye fin bi dafa des am dafa des am sens trop neexoon na nag commencement bi waaye fin bi moom des na waaw ngeen moom mun ngeen film trop mun ngeen bind trop waaye pour fin moom mooy seen problème. ndax ne nafitam noonu la woon nafitam ba mu jeexee nii la. salaamaaleykum waa Lu Xew TV maa ngi leen di nuyu di leen ziyaar bu wér wér maa ngi rafetlu seen liggéey maa ngi déglu sa vidéo analyse bi ci suba waa man ci Jalika laay wax Jalika moom li muy dund ci film bi ñu bari dañ ciy gis seen bopp naqar yi mu dund ci film bi jigéen ñu bari ñu koy dund. mais yal na ko yàlla saafaraal rek ba deuxième société bi mu dund ci lu ne xëy na yàlla defal ko mu wér ak jàmm ak salaam laala tamit li mu def benn dara jaru ko benn góor jaru ko ci kaw àdduna benn góor jarul nga yàq sa moromu jigéen ndax góor parce que góor ñi ñoom ñëpp a jaruñu ko parce que moom mareem lu mu ko def rek Cheikh Diagne moo tax mu def ko ko Cheikh Diagne bu mayul woon Marème opornité bi tax muy def loolu laalan di ñëw Cheikh Diagne moo ko fa indi Marème indiwul boppam ci biir kër gi lépp Cheikh la te jigéen ñi dañoo war a yeewu xam ne góor ñi jaruñu dara ñoom ñëpp yem jaruñu tus góor jarul ngay yàq sa moromu jigéen ndax góor dara jaru ko fi mooy loolu daal ñu ngi félicité waa Marodi TV parce que ñoom seen liggéey rafet na torop ñu ñuy jàngal ñu bari ci film bi ñun ñaa ngi ciy gis seen bopp yenn ñun ñi ko dund di ci gis seen bopp macha allah yal leen yàlla lafal ca ñu xaar deuxième saison bi merci beaucoup nekk leen ci jàmm. asalaamaaleykum. émission bi neex na trop suma dugg gaa mais may sagam dugg daan naa ko suivre mais masuma dugg tey jërika moom kii bu mu joué bi ruur bi moom yóbbu na ma fu sore te laal na ma itam képp kuy dund nga toog képp ku toog seetaan film bi rek sarangoñ tuuru na parce que neexul nga toog gisoo sa yaay neexul itam neexul daal man dund naa lool sama yaay daf teel gaayu ñaar doom la am man ak sama mag mu dem bàyyi nu fi ñuy dundal lu metti mais léegi alhamdulilah maa ngi sant yàlla parce que sama naqar mi ngi wàññeeku nànk-nànk ci fin 2018 bi ci laa am jëkkër alhamdulilah yàlla boole ma góor bu baax alhamdulilah waaye neexul ci xol daal sa yaay dem bàyyi la neexul tey moom xol yëpp fees nan asalaamaaleykum wàllu xew TV na ngeen def naka liggéey bi dina si kawam seen théâtre bi neex na am na solo neex na am na solo vraiment Jalika yërëm naa ko ba fu yërëm am because of Jalika théâtre bi def si sonn so lii moom yéenewu ma ko ko woon pour mu dal ko yéenewu ko ko woon waaye nag na yokk a julli di ñaan yàlla rek yëpp dina baax ma ko lépp dina baax olof yi dañ ne jaam pexem yàlla ak dogalam vraiment yërëm naa ko lool yërëm naa ko lool euh, seconde fois Marème moom Marème tamit c'est la même chose yërëm naa ko trop suma yaram daw na moo tax olof yi dañ dee wax ne booy xale sàmmal sa ndaw lu am solo la waaye nga toll ca digg ndaw toll sa dëgg jànq te yaa ne xaaral ma def lu ma neex wax lu ma neex ëllëg rek loraange la laa ñëwal yërëm naa ko torop torop waaye ñun jigéen ñi lii yeete la neen bàyyi suñ xel bu baax bàyyi suñ xel yar suñ bopp yar suñ doom yi because of lii yeete la yeete la bu baax a baax a baax vraiment yërëm naa Marème bu baax a baax a baax bëgguma woon nag lii dal ko jërëjëf hmm, salaamaaleykum man la Mariama maa ngi dëkk Mbour euh, série bi moom wax dëgg moom neex na trop trop trop neex na trop c'est que euh, ni ñuy joué dara amu ci calme calmement la daal du ñu joué dara am ci ñoo ngi ci jàmm ñoo ngi ci salaam ba pare ça jeune daal parce que nit ñi ñoo bëgg maa faral kii maa faral kii te xamul bu ñu paree ñoom ñëpp ñooy àndaat nekk benn lii série kese la ah, du dara du nekkul comme sa danga war a faral kii da nga war a faral kee wala lii wala laa parce que après ñoom ñëpp ñooy àndaat daal ci lu ma gis série bi man Marème moom wax dëgg moom man vraiment lu muy joué rôle na rek dañ ko jox Jalika tamit euh, loolu lañ ko jox muy joué mooy noonu ku ci nekk ak sa rôle ñu jox nga joué waaw mais am na yenn yoo xamante ne jaru ko ñuy wax ci yenn série yi moo gën parce que sénégalais moom ku leen topp du dem waaw. waaw ah, salaamaaleykum sama gars maa ngi leen di jaar waaw man li mu bëggoon wax ci maîtresse d'un homme marié rek mooy xam nga yi ñu ngi wax échange yi ndax Lala day yàq. mareem du koy yàq daal dina yàq mareem ak du koy yàq mais naa leen waxal tara gis na jigéen amul benn jigéen boo xamante ni baax na baaxu xamal lu jëm lu bon di ko dencal benn jigéen baaxeewul noonu pour man tôt dina utiliser loolu noonu mu am loolu noonu mu am ci mareem tôt ou dina ko utiliser contre mareem c'est ça le problème billaahi wallaahi taalaa dina ko utilise xam nga nag pour man jaru ko woon daal. jarugo woon parce que man je me dis que ni Lalla ci boppam waroon naa mën a nekk ki jàppale Marème parce que Marème xëy na même bu nekkee ne dafa bonoon dafa nekkoon ci leneen NS bi jël na intention pour jël yoon bu baax bu ko soutenir woon mën na dem quoi pour man. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di nuyu gars yi ah, tur la maa ngi leen bëggee di leen siyaar sama waa ji waaw man de sa YouTube laa dugg déglu commentaire yi quoi mais am na solo bu baax a baax a man di ma ci commentaire rek comme Jalika ndax euh, comme niñ koy waxee rek dund bi métti woon na ci commencement ba man pour man sama xalaat quoi ci sama xalaat waroon naa mujjee foo xamante ne nii war na am góor goo xamante ne war na mën a changer vie am xam nga moom tam mu dund tuuti bànneex boo xamante ne ni après xam nga day fàtte lépp quoi en tant que kii man daanaka maîtresse ba mu commencé ba léegi maa ngi koy suivre waaw chaque ba cinquante bi maa ngi koy suivre waaw loolu moom wax dëgg yàlla doon na loo xamante ne tam lu ma xaw kii la quoi ak tam diggante Marème ak Lalla Lalla fu mu nekk nii te Lalla premièrement bi wane woon na jikko ju baax ci ci film bi quoi jikko ju baax boo xamante ne nii ñëpp naw nañ ko quoi. kon bu demee ba ci biir defaat ni ndax euh, seex parce que demoon na benn instant ba nangu na nangu woon na bu jógi quoi mais ni ñu koy wax rek seytaane dafa bëri doole xaritam boobu di ko poussé ci affaire loolu xëy na Lalla looloo tax mu def loolu yëpp mais Lalla bu ko gis ci commencement bi film bi ba léegi dawal na loo xamante ne wax dëgg yàlla lu nice la waaw kon nag xaw ma nag mu demee noonu bu ko poussé ba mu def loolu mais ñu lay sant di la gërëm wax dëgg yàlla ndax lii am na solo ndax ñun wax dëgg yàlla maîtresse dañ koy suivre ba cinquante bi waaw moo tax bañ duggee YouTube gis la ngay commentaire ñu jël sa numéro pour jëm ci bokk quoi ok merci beaucoup wasalaam. salaamaaleykum maa ngi leen di bu baax di leen ziar waaw di fekk maa ngi leen di ziar bu baax a baax a baax di leen ziar bu baax di leen jox seen wàccuwaay di kontaan bu baax a baax. ci théâtre ñoom Marème bi wax dëgg fa yàlla film bi neex na lool leen ko ci fulla jée ko ci ngor jée ko ci jàmbaar ba ak Serigne Saliou man de wax dëgg fa yàlla film bi dama koy suivre mu neex lool nag ñëpp di ko suivre bañ na ko su tàmbalee dootuma bëggati dara lu toog di ko seetaan di di wax di masawu Marème ni ko li ko dal metti na lool ndax su kon ñun ñi la ko dal kon dinañu metti lool. ba dara ñu sax leneen leneen ak leneen ma koy maslaw bu baax a baax di ko wax deuxième seconde na ci def lu naturel lu dellu si xelam daal Jalika tamit li ko dal métti na lool tamit na dund lu neex deuxième seconde moom na dund lu neex ndax moom lu métti rek lay dund di ziar ñëpp nag nuyu naan leen bu baax di kontaan si lii bu traiteur bi moom wax dëgg fa yàlla neex na lool ñun ñëpp ko suivre. ci leen ñaanal yàlla fayal leen ndax lii ngeen ñu defal defal ko kenn ñun rek ngeen ko defal kon li dafa neex leen ñaanal yàlla yàggal leen fi si barke Serigne vraiment kontaan bu baax a baax a baax maa ngi tudd Soxna Thiam dëkk Géewul. asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen waa Lu Xew TV ñu ngi leen di siyaare bu baax di am kontaan ci série bi di ah, la xamal ni ñun dañ koy suivre fii. di leen xamal ni daal man li ma ci jàngat mooy maanaam ayibi doomu aadama maanaam mbiri doomu aadama nit warul di ko lu ñëtu bam jaral ko muy mooy muy weer doomu aadama ngir intérêt àddunaam ndax àdduna fi la yem li jara sóor mooy yowmal xiyaam sa boo ko suturaale suñ borom suturaal la ndax ëllëg yowmal xiyaam di nga gis nit na jéggi Ah, suñ borom rek la ko ba mu nar a jéggi dem àjjana nit jóge fule daan ko yow mënagoo dem àjjana ndax am na loo ma defoon ci àdduna suñ borom daal di ñëw ba tiim ki nga xam si ni moo ko téye ni ko suturaal ko bàyyi mu dem man ma suturaal leen yéen ñaar ñëpp ngeen bokk dugg àjjana kooku suturaal ko maanaam sutura dafa baax ci doomu adama man loolu laa ci jàngat maa ngi bu baax nag di leen xamal ni diine daal war man mën nañ mën nañ koo jànge fu ne ci théâtre yeeg fu ne mën nañ ko cee jànge doomu aadama yi nañuy suturaal lan seen i biir di nëbbante seen i ayib seen biir ndax koo gis ci àdduna am na ay ayib waaw ndax ak njëlbeen du dara àdduna li am solo mooy mujjantal ga mujjantal àdduna mën na li naan mucc gu rafet moo am solo nit mën naa am njëlbeen di def lu ne waaye suñ borom bu ko naree baaxal rek ak njëlbeenam lépp mën naa baax nañu suturaalante dara àdduna wu jarul loolu wujjëg yooyu yëpp ay affaire àdduna la amul njariñ ndax suñ borom moo daganal soxna maa ngi jéglu nag ah, li ma nar wax bari na waaye kàddu yi laa bëgg a tënk rek maa ngi jéglu bu baax jërëjëf asalaamaaleykum ñoo ngi siyaare bu baax a baax a baax waa Lu Xew TV waa gest bi nice na ñoo ngi leen di jaajëfal leen jaajëfal leen jaajëfalaat bu baax a baax a baax a baax a baax waaw di encourager Mbaro di comme ni nga ko waxee rek waaw chute bi moom suivre nañ ko hmm. euh, ba cinquante daanaka ni fin bi mais am nañ si quelques euh, gis nañ si quelques yoo yoo xamante ni daal man sama sama xalaat si ni may joxe mooy euh, yaayu yaayu seex quoi yaayu yaayu seex role bi nga xamante ni man li li sama xalaat moom li tax mënut a digérer maram ak tamit Jalika tamu ma tamu far ak tamit Lalla lan mooy problème maanaam lu ko Lalla defal loo loo xamante ni ba mënut a gérer ak tamit Jalika parce que boo dee xool moom moo tax biram fase Jalika hmm? te boo en tamit tey moom mooy génne euh, Marème kër ga moom ak biram man loolu loolu meer bi foofu man jaaxal na ma des des na yeneen nag yoo xamante ni. <laughs> salaamaaleykum na ngeen def waaye yéen a ngi ci man maa bëggoon a participer. série uh-huh. bi bon c'est important neex na trop mais jàngale am na ci daal jàngale bu bari sax bon nit ñi war nañ jàngaat àddina mais c'est choquant touché na trop. moom métti na parce que histoire bi histoire yi ce sont des réalités boo nit ñi dañ koy dund euh, merem ak xaritam bi non dañu jàngale lu bari sax dañu jàngale lu bari non kenn du ñoom quoi no vraiment li rafet na li rafet na yéen a ngi yee société bi li ci gën a nee nag yéen a ngi dal ci xol yi bon nit ñi jàng nañu émission nit ñi seetaan nañ ko vraiment jooyloo ngeen nit ñi daal am na ñoo xam ne ñu doy jooy nañu parce que am na ñoo xam ne ko dund dañ ko dund seen xol ce sont les réalités yi ngeen ko teg foofu la di dëgg la les familles dund jali jalika ni mu dund métti na mais man dama am côté benn paar kóllëre xaritu meram bi nous j'admire beaucoup son rôle bon la mooy xarit Sénégal bu métti rek ñu bàyyi la nit ñi bu métti rek ñu bàyyi la surtout ma ñun ñi ci àll bi dañ koy dund vraiment dal ngeen ci xool yi parce que ñi ko seetaan bon seen rongoñ dal seen dënn bari na loolu mooy woon sama message mën a bàyyi ma gàttal mais vraiment daal man daal attribué naa daal j'apprécie beaucoup bon yàlla dafa leen jàmm quoi voilà vraiment série bi moom amul sikki sikki moom gisuma ko ci daal je vous remercie beaucoup. maaleykum maa ngi nuyu ñëpp du nuyu waa Marodi TV du nuyu képp ku may dégg rek maa ngi lay nuyu. théâtre dama ko bëgg maa ngi jéggalu nag duma wax sama tur maa ngi koy lepp théâtre dama ko bëgg. yàgg na depuis ma nekkee xale depuis may sëy dama doon théâtre sax ba ma nekkee xale waaye théâtre dafa metti dafa laaj sacrifice dafa laaj ay coona ndax répétition boo koy def dafa metti rek dafa metti da tellement que doo xëy rek def ko waaw man dama doon répété ay ngoon lañ doon répété bu ma jàngee jaar fi ñuy répété daal di ñëw balaa ñuy ñëw répétition day gudd bu ko defee ñu may fiire naan théâtre amul njëriñ amul lii dama ko mos bëgg dama ko mos a bëgg mu jigi sama papa d'accordut ma ne xaaral kon ma bàyyi ko dem sëy daa duggee si sëy waaye lépp luñ ci ci théâtre bi am na ñu wax ko ñu bañ koo wane dafa mel ni dañuy dugg ci biir këru nit ñi di xam li ñuy dund ndaxte Sénégal dafa metti bari coona surtout sëykat yi dañu sonn seen néegu sëy am na jigéen ñu bon ñoo xam ne nanguwuñu sëy waaye am na jigéen ñu bo ñoo xam ne dañaa baax bëgg sëy amuñu ñu jàppale luñ wax ci théâtre bi rekk des na des luñ ci mën a wane loo xam ne buñ ko wanee danañ xam ne lii am na nañ ko laal ndax kër yi toj na te nit ñi nu ma ci jaaxal dañuy seetaan chaque jour série yu mel nii ñuy gis ñu leen yee te duñ mës yeewu chaque jour bu ñu xëyee même chose bi lañuy def même chose bi la ñuy répété waat kon nga xam ne àdduna dafa yàqu nit ñi yërëmatuñ kenn coono yi bari na xastaate bi ci kër yi bari na doy na waar daal doy na waar am na loo xam ne boo koy wanee sax dañ ñaan da ngay yàq xale yi or ko yàqoo xale yi dañ leen wan lu am ci dëkk bi ak lu am ci société bi waaye li ñuy joué nii lu ko gën a pire moom fi te kenn tudd ko jigéen ñi dee nañu sonn nañu te amuñ fuñ ko jooyee maîtresse de homme marié dafa neex dafa neex de tellement que doo sax comprendre ka ka bind est-ce que dund ko sax da ngay wax naan est-ce que dundul lii réellement ñu koy joué tamit da nga naan est-ce que ñi dunduñ lii réellement dafa neex daal man daal sama xalaat mooy neex na neex na sa kanam ca kaw sa kanam. théâtre moom dafa neex ni ngeen di def nii noonu la tubaab yi gënuñu tubaab yi dañuy jouer ay film yoo xam ne dafa garaaw waaye nit ñi dañ koy seetaan waaye chaque jour kuy def lu bon day mujjee fu bon tubaab yi chaque jour kuy def lu bon day mujjee dëgg la tooñ na waaye laal la moom it def na lu muy def malgré fiiraange moo ngi jooy moo ngi jooy neexu ko moo tax doomu aadama yéene ko jàmm fayantoo baaxul ci àdduna ndaxte nit ki boo fayantoog moom rek taneetoo ko fan nga ko tanee comme mageel rek maa kii kii sama rakk la bu la dóoree nga dóor ko bu la weqee nga weq ko kon taneetoo ko yow ak moom a yem benn lem du keleng du koy olof waxee benn lam du keleng ndaxte nit bu la dóoree nga dóor ko yéen a yem àtte yéen a yem àtte nit muñ sax dañ naan muñ waaye booy muñ dafay fekk nga muñ lu ñàkk pexe parce que du boo demee bay muñ dañ ñàkk nga pexe xam nga lan moo gën a baax nangu boo nangoo luñ la def nga luñ la tegoo nga nangu ko waaye boo muñee sax nee naa muñ sax hypocrite la ndaxte loo mënu danga naan carrément mënuma ko mu jeex waaye munoo di muñ muñ sax mane la tricherie la muñ sax baaxul ndaxte nit boo mënee nangu nangu ko loo te nangu nga ne nanguwuma ko mu ceex un point un tir waaw loolu la waaye di nangu loo xam ne gënu si yow gënu sa njaboot loolu boo koy def trop tard fooy mujjee du baax nit booy nangu dangay nangu lu lu booy muñ da ngay muñ loo xam ne lu baax la wala dafa am nit waaye muñ loo xam ne amul nit. loolu baaxut nit ñi dañuy wax naan muñal muñal muñal ba kañ Sénégal dafa metti boo nekkee ci dëgg buñ la tooñee ñu la muñal dangay ngay sëy buñ la xasee ñu ne la muñal da sëy buñ la saagaa ñu ne la muñal dangay ngay sëy yow muy sëy amoo droit wax boo waxee ñu ne yaa tas kër ga loo wax ñu ne yaa def nii yaa def nii yaa def nii doy na waa ci Sénégal waaye daal nañ rafeta toogaay yi métti na metti na man daal di laa amoon lu ma ci sànni ñoom ñëpp ñoom ñëpp defuñu dara nit ki moom loolu leb la rek lañ lay fay loolu moom demal maa ngi ñëw la loolu leb la lañ lay fay bu dee lu baax la moom ngay am bu dee lu bon la moom ngay am te wane nañ ko sax ci Lalla wane nañ ko ci Marème wane nañ ko ci Jalika loo leb la rek moom lañ lay fay loolu rek la. maa ngi jéggalu bu dee kàddu yi dëng na maa ngi jéggalu bu baax a baax a baax ndax nit matut lu ci rafet ngeen xam ne suñu borom la lu ci baax ngeen xam ne suñu borom la rek maa ngi jéggalu bu baax loolu daal laa amoon lu ma si sànni Sénégal moom toj na te maîtresse d'un homme dafa mel ni si kër yi lañ dugg point yu gën a garaaw mu ngi ci kër yi te kenn du ko souligner loolu moom man maa la wax lii lu gën a garaaw moom ci kër te kenn du ko wax nëpp nëppal nëpp nëppal nëpp nëppal rek ba kañ ça c'est trop catastrophique waaw maa ngi jéggalu bu baax baax a baax a baax maa ngi jéggalu di wax ne ñoom Lalla ñoom Marème ñoom Cheikh yoon bi rafet na li ñuy def rafet na lu ñu joué am na c'est réel c'est réel man duma ci kon ne kenn képp sa rôle rek luñ la ko joxee rek def nga ko te loo def rek am na lu tax nga def ko te luñ ko joué yëpp baax na te nit ku bon ma ne amut ci àdduna bon amut nit mooy permettre nit bon loolu dañ ko war a xam nit ci boppam mooy tax nit bon waaw nit ku bon amut man gëw ma ne nit ku bon am na ñàkk waxtaan na fi am rek waaye nit ku bon amul ci àdduna nit ñi ñooy tax nit ñu bon ma koy gën a waxaat ñu koy gën a dégg di ko répété waa ñu koy gën dégg nit ci boppam mooy permettre nit bon waaw maa ngi jéggalu bu baax a baax a baax a baax maa ngi nuyu ñëpp di leen sant di leen di leen ñaanal jàmm ak wér ak xéewar ak sutura ak teraanga ñu gën a gindeeku ci yàlla ndax yàlla nee xam leen ma balaa ngeen may jàmm booleen leen ma xamul doo leen ma jàmm waaw te loolu dëgg la nit balaa ngay dugg ci moom sax faw nga xam ko boo ko doom doo mën dugg ci moom waaw maa ngi jéggalu maa ngi jéggalu maa ngi jéggalu bu baax xam naa wax ji gudd na te xam naa résumé wu ko waaye xol laay waxee maa ngi jéggalu bu baax a baax a baax a baax waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf